asalaamaaleykum ah, mbokk yi am mbég contenté saa su ne di ànd ak yéen ci nga xam ni moo di seen ah, plateau ah, préféré chronique de l'actualité lañ koy tuddee général ci Mourchid euh, plus actu ñu si am euh, mbégte ak kontaan di ci ànd bés bu ak invité bu mag jëm nag ci li nga xam ne moo di question d'actualité yi nga xam ni moom lañ ciy euh, traité tey nag li nga xam ni moom lañ fas yéene sëgg am si ap càmbar am solo moo di wàllum jeunes yi ci biir instance élective yi ci loole ñu fas yéene dalal ci sunu plateau ki nga xam ni moo di Pape Alioune Diédhiou moom nag di chargé de communication réseau des jeunes en politique de l'Afrique de l'Ouest nekk itam militant alliance pour la république bokk ci baa nekk ca Ziguinchor terewul mu yëngu itam xam ne moo di union des jeunes pour la majorité présidentielle kookee la ñu fas yéene seqal waxtaan Pape Alioune maa ngi lay nuyu maa ngi lay fay euh, monsieur Thiam euh, nuyu euh, sama xarit bi Pape Pape Diagne di nuyu it seeni téléspectatrices spectateurs ak ñi leen di seetaan ci ci internet bi di am mbégte lool ñëw fii ma leen di gërëm bu baax a baax ci spontanéité bi nga am euh, pour euh, répondre ñu parce que plateau yi ñu ngi koy wër fu ne pour waxtaan euh, ak askan wi waxtaan ak autorité yi wax ak ñoom lan nga xam moom lañ nekk di def ci biir Sénégal ak ci bitim réew donc ma kontaan lool lool lool di ñëw fii seen plateau bu yanj bi rawatina nag mu nekk jeune ñi ma ñi ma ñi ma jàkkaarloo fii mu doon daf ma gën a daf ma gën a bëgga daal mm-hmm. donc euh, maa ngi leen di gërëm di leen sant mm-hmm. merci beaucoup mbégte boobu ak kontaante boobu la ñuy am ñu ni tam euh, saa su ne di bokk li nga xam ni moo di euh, waxtaan wi ak sama a maison xam ngeen nag man dama ko sopp lool ci fan sam yi la bokk góor a Diagne Pape maa ngi lay nuyu Thiam maa lay fay bu baax a baax di am mbégte xam naa ni maa ngi ni moom mooy borom kër gi moom mooy star bi donc moom la ñuy am mbégte toujours di jàkkaar lool mu nekk koo xam ne aussi xam ngeen ko mu yewoon trop ci li muy liggéey et puis di ko def ak niveau boo xam ne macha allah di ko ñaanal yàlla bu baax a baax noon laa amee mbégte aussi bokk ak Pape Alioune Diedhiou mi nga xam ne moom moo géré que nekk ci communication wu nga xam ne tudd nga ko léegi muy RJ PAO donc wax waxu jeunes yi def naa ni dafay nekk lu intéressé sénégalais yi nuyu itam téléspectateur ak téléspectateur mu Mourchid TV mais nuyu internautes yi ñoom ñi nga xam ne aussi gis nañ seen taxawaay gis nañu aussi seen jàpp ci Mourchid TV ñu leen di nuyu di am mbégte dajawaat ak yéen ci heure bu baax bi ci am mu nga wax ñu leen di nuyu bu baax euh, côté euh, digital bi ak euh, toile bi gis nañ li nga xamante ne noonu ngeen di jàppee si liggéey bi lu am solo la continuer ndax fidélité la te itam wax naa leen tribune bi yéen a tribune askan wi la kon nag lépp loo xam ni dafay soxal askan moom lañ ci waxtaane ne sëgg di wàllum euh, représentativité wala sax participation des jeunes dans les instances euh, publiques de manière beaucoup plus large mën a la vie publique euh, en ci boppam sax lañu ñu war a mën a wax weesoo li nga xam ne moo di instance élective yi am na yeneen ak yeneen yoo xam jeunes yi fu mu toll nii ay dole wàllum xëy mi ngi fi wàllum koom gi mu ngi fi donc mu mel ni li ñuy wax actualité la waaw ci boo xam ni du mës a jóg nekk que jeunesse dafa nekk loo xam ni lu am solo la ci dund individuel am solo mais collectivement aussi dafa am solo parce que jeunesse dem nañ ba wax ni boo ñu waxee sax jeunesse bi nga am ñu mën laa wax ban avenir nga am donc jeunesse dafa nekk temps bu fort temps boobu nag am na ñoo xam ni comprendre nañ ko jël seen responsabilité am na ñoo xam ni comprendre duñ ko ñu jël leen di leen utiliser gis nga jeunesse bi bëri na ay yàqu-yàqu yu am ci société bi seen loxo ñoom la ñuy jël Euh, bëri na bëri na même suy cadre bi nga xam ne moom la ñu nekk muy cadre politique da ngay gis jeunes yi au lieu ñu nekk ñoo xam te ne ay responsable lañu nekk ñoo xam ne dañuy jël seen engagement dañuy nekk ñoo xam ne ay suiveur lañu. ñu leen di defloo délit yi di leen defloo bêtises yi yéen a ngi gis li xew jamono ji yëpp te ay jeunes ñoo koy def donc bu amee ay jeunes yoo xam ni dañu former benn réseau mu nekk réseau boo xam ni law na ba romb Sénégal mu am particularité peut-être Aliou dina ci dellu te particularité boobu nag nekk lu ñu war a càmbar xool ko parce que itam daal la ñu gis ay mouvement mouvement bu ñu ko gisee identifié wu ci benn parti wala ñu identifié wu ci benn association mais bii dañoo gis ni dafa regroupé en ñi nga xam ne ñoo nekk opposition ak ñi nekk au pouvoir ñu day ci benn instance loolu dinañ ko jàngataat ba xool seen nekkin parce que Sénégal soxla na nit ñi teer seen i këral nit ñi teer seen i position yi nga xam ni ay appartenance moo koy wane mais nag ñu dem prôner l'intérêt général donc je crois que ni ñoom tey bu ñu ñëwee fii Thiam dina xam dina jaadu ñu waxtaan ak ñoom surtout xam ne moom lu ñu jëm parce que ñoom dafa am lu ñuy laaj nee nañu dañoo bëgg leen seen responsabilité à 30 pour cent élection yi nga xam ne ñooy am yépp moo xam élection député la wala mu nekk élection yi am te ñu koy waaj muy local yi yépp fu ñuy décider jeunes yi représentativité est-ce que jeunes yi pare nañu est-ce que c'est opportun pour le Sénégal est-ce que donc il y a plusieurs questions yoo xam ne war nañ ko mën a waxtaanee tey jàmm. teew ñu nataal Pape Alioune loolu moo ko fi indi tontu suñuy laaj ma jëm ki nu ko ndaw ñi ci biir langue politique bi ban taxaw ci am ak ñoom ñoo si war a mun a nekk seen ëllëg si jamono ju nga xam ni mu ngi wax sax li ñuy wax euh, redéfinition de la classe euh, politique euh, sénégalaise tey mu mel ni kon taxawaayu RG dafa ñëw jamonoom. waaw monsieur Thiam xam nga Diagne dafa mel ni wax na daal lépp li nga xam ni tey moom moo ëmb ñun suñu réseau ndax RJPAO mu ngi judd ci benn programme bu ñuy woowee PIPA programme for young politicians in Africa mu nekk benn programme boo xam ni. l'agence suédoise du développement ak benn institut bi nekk Burkina IGD institut pour la gouvernance et la démocratie ñoo ko sumb parce que dañu def dañoo def ay jàngat jàngat yi ba fee gis ne euh, ndaw yi bëri na lu ñuy yëngu ci politique bëri na lu ñu leen di utiliser bëri na ay combat yu ñuy participer daanaka daanaka sax démocratie Sénégal ndaw yi ñoo ko boot ñoom ñoo ko liggéey ñoo tax ba tey ñu egsi fii ndax xeex yu bëri ñoom ñoo ko def ñu defee études yooyu noonu gis na néew na ci lu ñu leen di boole ci bërëbu nasu donc loolu li ko waral mooy que peut-être jeunes yi ñoom seen bopp amuñu organisation bu ñu taxawal pour que organisation yooyu xeex mën leen xeexal loolu waaye desee ñoom jël responsabilité ci parti yu ñu nekk wala ci biir association de de la de de de la société civile yu ñu nekk pour que ñu mën a am responsabilité jaakaarloo ak askan wi laaj leen seen baat laaj leen seen i suffrage am bëgg-bëgg bokk ci ñi nga xamante ne ñoom ñooy kilifa kilifa yi ci ci ci ci seen i ci seen i gox ba ñu defee loolu ñu gis ni donc benn pàcc ñoom mën nañ ko lijjanti mooy que formation ndaw yi euh, formation boobu day tax ñu renforcer ñoom seen taxawaay ñu mën dooleel seeni seeni personnalité maanaam bu ñu ko defee ndaw yi dañuy dañuy gën a euh, identifier seeni responsabilité ci société bi danañ toog di jàpp ni seeni seeni seeni seeni taxawaay du du du nekkul rek dem di mobiliser ay ay ay ay ay ay organisation dem ranger ay chaise wala dem di yàq wala di xeexal wala di xeexal gaay tey dafa dafa dafa dafa dafa jot ñoom suñu bopp ñu xeexal seen bopp waaye bokk ci ni ñuy xeex ni ñuy xeexee pour suñu suñ suñu réew naat jëm kanam te am na ay études yu bëri yoo xam ne tey wane na waaye ndaw ci dëkk yi nga xam ni par exemple Suède wala Finlande parce que tey booy jël ay dëkk yu gën a développé pays yooyu ngay comme ay référence ay Finlande ay Norvège euh, ay Suède boo demee ci réew yi ay ndaw yor Finlande euh, premier moo ko yor donc pourquoi pas Sénégal ñu euh, xawal programme boobu ci parti euh, ndaw yi ñu ne il faut ci ndaw yi gën xarañ ñi nga xamante seen engagement ñëpp xam nañ ko ñu participer benn test test boobu bañ ko defee mu am ay jeunes yu ñu retenir test yi dañ koy def ci ay euh, gouvernance démocratie maanaam ñu xool ndax sa sa xam-xam màcc na ci ci ci wàllum démocratie bonne gouvernance wàllum économie wàllum développement ak lépp loo xamante ne intéressé na politique bi bañ ko defee mu am ay ndaw yu ñu retenir Sénégal bokk ci ay parti politique yu nekk ci opposition bi yu nekk ci euh, ci pouvoir bi tamit ba def formation bi dem na d'Ivoire dem nañu Burkina dem nañu Mali dem nañu euh, Niger ak yeneen dëkk yi nekk donc ñu dem tase fa ak ay ndaw yu jóge ci yeneen réew yi tamit mooy réew yi ma yi ma jotee voilà yi ma lim sànq mu am échange d'expérience échange d'expérience ñu gis ni ñoom it seen dëkk yi même problème la ñuy jànkonteel foofu noonu ba ñu waxtaanee donc ñu ne il faut ñu teg ay réseau pour xool non seulement euh, lan mën indi lu bees ci doxalinu parti politique yi ak lan la ñu war a mën a indi en tant que jeune ci liggéey bu ñuy def pour suñu réew moo tax nag après formation bi ba ñu defee euh, benn compétition sax def def nañ fa benn compétition euh, réunir euh, délégation yu bëri jógee ci ci ci dëkk yooyu noonu Sénégal bokk ci délégation yu yu ñu ràññee ci wàllum plaidoyer ak wàllum am suñu délégation moo jël raw gàddu bi ñaari trophée ci kanamu euh, malien yi ci kanamu euh, burkinabé yi ci kanamu ivoirien yi ak togolais yi mu doon loo xamante ne euh, lu am solo la si ñun ba ba ñu demee dellu ñu ne il faut ñu teg kuréel boobu Sénégal pour que it xeex bi ñu mun koo xeexal suñu bopp ndax da ngay gis ci parti politique yi ni ñuy utiliser ndaw yi nu ñu leen di néewee néewalee doole maanaam bon du xoxatal leen mais néewal doole parce que ndax euh, yow jeune bi da nga koy ne waroo aspirer nekk responsable waroo aspirer nekk député waroo aspirer nekk ministre yow da nga war a nekk ci ginnaaw nit ñi di leen di topp euh, di leen defloo yeneen yeneen yeneen yeneen yeneen acte yoo xamante ne bëgguma ko wax mooy kas yi ñuy gis di violence dem taal xam nga yooyu la ñuy defloo ndaw yi ñun ba ñu toogee ne rôle yooyu noonu wax dëgg fa yàlla war nañ koo weesu ndax ndaw ci biir ci biir réew balaa tax ñi naan biir réew ndaw ndaw ci biir kër dafa war a nekk ndaw bu exemplaire ndaw buy dem wut pour indil famille donc ndaw ci biir réew dafa nekk dafa war a nekk ndaw buy dem wuti pour xool muy participer ci lu ñuy defaree réewam yaakaar naa am na tàggatlu boo xam ni faaw tamit bu ñu xoolee bu baax politique ni muy euh, tëdd nga xam ne ak euh, Sénégal nañ wax ni parti ci xar kanamam bokkul ak parti bi ci beneen bi am na parti yoo xam dañ leen di tuddee ay parti patrimoine patrimoine nit moom moo ko moom moom mooy moom mooy financement yi am na yeneen parti yoo xam ne ay parti yu gën a structuré la parti bu mu ci mënti doon na ndaw ñi ji bu ñu dee xoolaas bi nga xam ne moom la ñu ñuy seetlu sax ci taarixu Sénégal bu xoolee bu ndaw bu wàllum politiquement ay jafe-jafe ngay ay jafe-jafe ngay ndax xoolee depuis les dépenses Moustapha Niass ñu ne jeune mu ngi récemment récemment bu ñu dee wax ay comme Barthélemy Diaz mu ngi fi kaw Sonko exemple mu ngi fi ak ñeneen ñeneen ak ñeneen tey jii nii combat bi ban côté la war a mun a nekk bu fekkee ne bàyyi ngeen xel bu baax euh, cas d'école yooyu nga xam ne jaar na fi. xam nga euh, d'abord de préciser ñun charte africaine de la jeunesse charte boobu dafa ne euh, ndaw yi ñoom Euh, seen âge amul trente cinq ans dafa am limite dafa am limite donc africain bi nga xam ne Sénégal signé na ko mooy moom mooy ne ndaw yi mu ngi am at boo xam ni trente cinq ans donc mu rafetlu euh, décision euh, président Moustapha Niasse jël ne en deux mille dana joxe lengay donc ñu ngi koy rafetlu mais liggéey bi tey ñoom kilifa yooyu noonu ak fu ñu mënti nekk ñoo ñu war a yombalal mbir yi ndax bu kese pour mu dem day jafe mën na dem pour mu dem day jafe ndax il faut mu am kenn koo xamante ne dem na ba dellusi xamal ko ban yoon lay jël nan nan tey wax ak nu mu koy defee donc seen njëriñ tey du taxaw rek di seetaan wala bëgg euh, bon bëgg ñu xañ fa fa fa ñuy fa nas euh, politique mais seen liggéey mooy jàpp wala ñu nekk ci bërëb yooyu noonu ñoom bu ñu indee seen xalaat ñun ñu jox ñun ñu jox leen seen ndax boo gisee Sénégal 16 millions de Sénégalais ci 16 millions yooyu noonu 12 million de jeunes ñoo fa nekk maanaam téeméer boo jël quinze pour cent yi ay ndaw lañ. donc yow soixante pour cent yooyu noonu boo leen jëlee nga beddi leen boolewoo leen ci li ngay ci li ngay nas pour as donc jël en compte ni moom mooy seen bët loolu mooy indi yeneen frustration yi. moo tax ngeen bëgg yéen dugal seen benn projet de loi. boo xam ne dañ leen di impliqué. mais léegi Alioune yéen dañ leen war a impliqué d' accord mais est ce que implication bi aussi bagage yi ko war a lal ma nga fa formation bi ma nga fa xàññe xàmmee ma nga fa yéene bi taxawaay fa est-ce que aussi tëb tëb tëb rek intégré te bagage yi ko war a dajale nekk fa est-ce que loolu du nekk erreur boo xam ne lañ ko parce que gis ni le cas euh, parité dañu jël rek ni nañu dugal jigéen ñi ñu góor benn góor benn jigéen mais est-ce que aussi bu ñu bëggee dugal ndaw ñi dafa war a nekk rek nañu dugal ay ndaw ba respecter corps bi sans pour autant préalable yi nekk fa d'abord moo tax nag loolu euh, ñun suñu association RG PAO euh, ñu teel a jël jëm matukaay yoo xam peut ñuy jaar ci ñun euh, suñu leen tabbee mën nañ def ay résultats yu baax parce que tey balaa ngay laaj responsabilité il faut que ñu xool ndax yeeyoo nga ko responsabilité dafa ànd ak formation waaye dafa ànd ak dafa ànd ak yéwén dafa ànd ak jub ak euh, xaw ma dëggin lañ koy wax xaw ma lan ndax tey mën nga am xam-xam am compétence bi mën a doxal mairie lu ñu jox nga luubal ko. amoo jikko bi nekku fi ak bëgg-bëgg bëgg-bëgg askan bi mooy lu nekku fi donc ñun suñu kuréel tey taxawaay bu ñuy taxaw mooy que dajale jeunes yi leen jàppale leen ci li nga xamante ne foofu la ñu sooxe bu dee ay formation la ñu jàppale leen ci ay formation bu dee wàllum vertu la qualité bonne gestion ak leneen lu ci tegu ñu jàppale leen ci ndax ndaw dañ koy gat dañ koy préparer pour ëllëg loolu ca ba muy teel la duñu xaar ne nag kii mat na mat mat na kilifa nañ ko nañ ko dënk ay ay ay ay ndombal tànk loolu laay faral wax ni ndaw bu teelul dugal ci nu ñuy doxalee réew bu màggee loo ko jox mu yàq ko wala balaa muy doxee mu am lu lu bëri donc tey dafa dafa dafa dañu tollu benn moment boo xam ni dama toog ak benn kilifa le président Wade moo ko euh, moo ko moo ko promulgué ma ne ko ak lu ñu ko mënti waxal peut-être parfois am na lu muy doxalee ak nit ñi ba ñëpp seen donc le président Macky Sall yi na jël initiative bi bi nga xam ni ndaw ñoo ko ñoo ko euh, ñoo ko élaboré mais foo dem ci biir réew mi ndax def nañ léegi les les les les bon un peu les euh, les coins du Sénégal dem nañ Ziguinchor dem nañu Fouta dem nañu Tamba dem nañu fu ne waxtaan ak ndaw yi donc la ngay ci ndaw yi mooy que ñoom bool boolewuñu leen ci mbir mi donc tey le président Macky ci lépp lu muy def lu baax gis nañ ko mais ndaw yi nañu fekkee ñu dugal leen ci euh, bërëb nasukaayu politique léegi am ngeen avant projet yi yéen yéen ko teg sur loolu fan la toll. Euh, depuis 2017 ndax PIPA lu joxe RGP euh, promotion bi 2016 la promotion 2016 moo ko xalaat promotion 2017 ñëw sumb ko def ko avant loi promotion 2018 ñëw yaatal ko ci association yi dem waxtaan fu ñu mënte nag promotion 2000 dem wuti lu ñuy naan charte de vulgarisation maanaam muy ku ne tey dañ lay laaj est-ce que yow tey pare nga pour jàppale ndaw pour que avant projet de loi bi mu mën a dugg donc tey fu ñu mooy gouvernement bi yëg na ko parce que projet de loi bi bëri nag looloo des parce que pour mu approbation il faut mu yóbbu ko assemblée nationale parce que projet de loi bi ci ñu nekk pour mu nekk projet de loi bi ko assemblée nationale ak nationale càmbar na position boobu xoolee bu baax euh, ak euh, président kon lépp fi mu toll nii ci président de la lay dépendre ak ci gouvernement wam moo ne euh, moom njiitum réew mi ay semaine a ngi nii mu ngi nekk ci tournée économique donc mun nañoo wax ni avant projet boobu dafay xaar fu ndax xam Sénégal sax ñëpp ngi naan gouvernement dafa sax xaw a démissionné ci côté boobu xam naa ni militant casquette militant bi dina xam ñu xaw wax rek li nga xam ni moom mbir mais surtout xam ni tey euh, Pape junj na ko sànq ci cadre formation capacitation bi ndax buñ ko dee wax balaa ngay nga ne tey bu ñu leen wax ni ndaw ñi war a occuper ay poste de responsabilité yu toll ne ay fonction élective lu ci bari ay fonction la yoo xam ni dañu ay décision dañu nas ak ci tey jii nii ak euh, pro situation bi nga xam ni moom la Sénégal euh, wax nga sànq ci avant projet bi na beneen travail boo xamante ne war mun a am ci biir RJPAO defee itam na ndaw ñi bu moon sax bay promulguer loi dina waaw loolu euh, yaakaar ni euh, lu am solo la ndax euh, bon wax naa ko fi sànq am xamante ne pare ñu jël leen dugg rek des te gis nañ ay ndaw yoo xam ne bañ leen tàbbee dugg def nañu ay résultats bu ci ay ay président ci résultat yu bëri yu mu am yu baax ay ndaw ñoo ko fa donc loolu dafa am solo euh, ci wàllum turne bi sax pour pour man dafa am loo xamante ne lu am solo la parce que boo demee nga jàkkaarloo ak ay ndaw boo leen déglu da nga xam exactement lan la ñu bëgg te boo ñëwee boo jël ay ndogal da nga fàttaliku Euh, Tamba waxoon waa Kumpentum wax waa gi wax nan laay def ba boole ko ci li may fajee euh, askan euh, nuñ koy waxee Sénégal jafe-jafe Sénégal beneen façon waxalin la façon ba nga xam ni gis ngeen du mooy conseil présidentiel sur l'emploi et l'insertion bi incident boobu amoon jakartamaan nii ne jot nañ seen xaalis mhm. eh, jotuñu seen xaalis ministre bi ne joxee na xaalis bi gouverneur bi ne moom gisul dara donc xam nga loolu su amuloon donc président wala boog askan bi nga xam moom mooy joxe alalam président géré xam duñ ko xam duñ doon xam mhm. sax jakartamaan noonu duñ doon xam xaalis bi fu mu jaar mhm. ndax am na fu mu nekk wala bon parce que waxuñu ne dañ koo lekk dañ koo détourné. l'essentiel demul ci destination exactement voilà yeggul destination lu gën a leer mooy nañu wax nit ñi fan la jaar ak lan moo tax mu yéex donc loolu tamit ci ci gouvernance la bokk donc action yooyu noonu euh, déplacement président yi ngay gis ni dafa am solo day tax nit ñi mën a jàkkaarloo ak moom wax ko de spontané li nga xam ne loolu la ñuy dund peut-être aussi ci benn problème président joxe na si instruction ministre bi moo ci doxalul nu mu ko war a doxale président bu ñu ko ko waxee bu xoolee ni wax na ci dara kenn defu ko mais c'est une manière aujourd'hui de prendre une décision sur sur sur cette personne là alors est-ce que gis nga ni depuis boobu aussi président yi muy teg nga gis ni des fois am na yoo xam te ne dafa bloqué te fi mu bloqué du ci moom décidé da ko joxe na engagement am joxe na instruction pour ñu def ko gis nga ni am na des fois ay blocage ci ay personnes léegi est-ce que boobu ba tey aussi gisuñu benn sanction par rapport ak loolu aussi gisuñu benn sanction est-ce que une bonne gouvernance ànd naag nga gis nii lii war nañ koo doxal pour askan bi doxaluñ ko ñu seetaan loolu deuxièmement yaa ngi wax ci tournée bi tournée bi baax na mu dem déglu ay jeunes accompagné nañ ko ba gis nañu des fois muy am mobilisation yu exceptionnelle mais ci biir tournée yi aussi gis nañ ay incident yu doy waar yoo xam ni ay nit ñoo ko def ñu tuddee leen ñoo xam ne entourage président la gisoon nañ ko ci événement mars yi ba nit ñu commencé di tiit surtout le phénomène des nervis loolu aussi yow en tant que jeune ngeen di laaj ay responsabilité lan ngeen ci xalaat euh, xam nga mbir yi dafa dafa dafa dafa xaw a compliqué euh, am na ay wax boo koy boo koy boo koy wax surtout nga nekk koo xam ni ñu lay déglu mm-hmm. nga bokk ci ay kuréel yoo xam ni ña fa nekk mm-hmm. dafa bëri fu ñu jógee da am nooy waxee doo wax pour culpabiliser doo wax pour ne sa xel-xel mais di nga wax pour wax da ngay wax sénégalais yi lu li nekk da wax loo xamante ne peut-être tey bul bul diplomatie waaye bul diplomatie wax nag sénégalais yi aussi bu ko ñu ñuy dëggee nañ xam ni mm-hmm. Mm-hmm. tey suñu réew toll nañ fu ñu xam ni ñëpp a war a dalal seen xel xool dafa war a dal xel war a dal mm-hmm. ñëpp war a mën a jublu benn euh, benn yoon newuñu ci élection man li may li may ñaan mooy ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci ci situation lañu xool nañ koy defee ci anam yu rafet boobu musuma d'accord ci waa politique violence mosuma ko woote mosuma ci ci nekk d'ailleurs sax ba may nekk ndaw ci mouvement de jeunesse su parti bi musuñu ma woo pour dem yàq ma dem musuma am donc du ma fi nekk naan loolu baax na ndax baaxul ma li may ñaan ñooñu ñu xool nañ koy defee nu mu gën a rafetee ñu nekk ci nguur yi ñu nekk ci opposition ndax nguur gi parfois ñoom dañuy jël seen matukaay parce que doo dem foo xamante ne leer na ni am na ñu la fay xaar nga dem ni loxo neen. mais nañ force de l'ordre. ma xam nga problème bi que ñi nga xam ne ñoom ñoo téye nguur gi président de la république ak est-ce que ñoom ñoo loolu lay wax ci. parce que il faut mais mais mais Aliou bu fekkente ne ñoom la président dina gis image yi. dina ko gis sénégalais yi boobu ba ñu koy jàpp. ça une enquête est-ce ay homme de tenue lañu bu fekkee ay homme de tenue lañu est-ce que am nañu la la responsabilité yor ay. bon pour information wax nañu ay homme de tenue. donc euh, loolu na ay na ay yoo xam ne loolu mais loolu dafa amoon mars tey mu ngi répété waat juin ñu ngi jëm ay élection loolu aussi est que est-ce que jaadul ñu taxaw ci régler ko une bonne fois pour tout pour la stabilité bi ngay woote loolu laay wax bu fekkente ne gouvernement bi gis na ko war na ci jël ay matukaay war na ci jël ay ndogal pour ko loolu ñu mën ko évacuer tegee ko boor mais tam am na loo xamante ne nee nañu euh, lu yëngulu lu ne lu ko yëngal moo ko ëpp doole ndax tey bu yëf yi jaaroon yoon bu ñëpp daloon bu ñooñu di jël nervi yi bu ñu bu ñu leen leeroon ni amul benn danger bu nekk seen kanam yaakaar naa ni ñoom. jarul ñu jël kon daal mbir mi dafa mel ni dafa am ñàkk kóolute bi am ci diggante acteur politiques yi. ndax ñii dañuy yaakaar ni am na kamb yu ñu leen di gasal fa ñu jëm. mais ñeneen ñi dañuy yaakaar ni am na lu metti loo xamante ne. ñu ko sax ndax gis nañ gis nañ ñoo xamante dañ dañ taal seen kër. dañ leen xoxotal dañ leen fekk fu ñu nekk néewal leen doole mm-hmm. donc xam nga yooyu it il faut ñu wax ko mais mu ngi ñu ngi jëm ci xam nga loolu aussi mu ngi jëmee réew mi ci benn benn trou boo xam ni tey bu ñu fa demee kenn du ci gañee ak baaxul kay duñ ci gañee te am na ñoo xam ne ñoom lañ fi teg ñu les force de défense et de sécurité est-ce que itam jaaduwul tout ce qui sécurité tout ce kii est ñu delloo ko seen loxo ñu bàyyi recrutement bi parti bu mu mënti doon nga bàyyi recrutement bi bàyyi di xam ay xale pour que ñoom ñuy def des violences yoo xam ne après ñoom ñoo ciy perdre parce que les événements de mars y a des gens euh, des enfants des yoo xam ni faatu nañ ci ana enquête bi kenn gisu ko ku nekk yaa ngi naan sa morom mooy responsable est-ce que itam loolu ban appel ngeen ci am bi ñu des ñu ngi jëm ci ay instances ñu ngi jëm ci ay élections bëgg ngeen fa am représentation ci élections yi ñu jëm mais élections yi aussi dañoo gis ni dafa am bu commencé am doole mooy jeunes yi. financement yi jóge fu ne nga jékki-jékki gis jeune bu nekk jékki-jékki élection dafa laaj moyen mm-hmm. jeune bu nekk nii bëgg naa ñu jox ma ba gars yi naan élection yi jeunes ñu ngi koy jël est-ce que itam élection yi laajul ñu gën mm-hmm. par rapport ak financement extérieur yi par rapport ak yeneen structures yi nga xam ne mën nañoo yàq mm-hmm. trajectoire bi Sénégal jëm exactement loolu bon ànd naa ci ak yow d'ailleurs sax gouvernement Sénégal jot na jot na ci jël ay ay ay ay ay mesures pour jëm a càmbar li nga xam ni financement extérieur la surtout ay financement campagne yi ngay gis euh, mais dama dama dama benn aspect bu important la parce que ndaw yi parfois ñu nekk ci ay position yoo xam ni euh, daf leen c'est-à-dire nit ñi sax ñoo leen di weddi ndax mënumaa ne man dama am ambition bëgg naa am xaalis ma war ko jëlee fu ne loolu wax dëgg fa yàlla tax du du warul nekk taxawaay ndaw looy wut la ngay utiliser pour wut ko tamit am na solo effectivement la ngay wut bu amee solo la ngay ut pour am ko dafa war a am solo te da nga ko war a xool donc ñun li ñuy ñax jeunes yi mooy ñu def ndànk bañ a euh, bañ a yàkkamti taraxi ci loo xamante ne ëllëg après dana leen jural ay problème suñu réew it dafa nekk ci ay benn benn contexte boo xamante ne tey mën naa ne sax àdduna bi moo moo moo moo moo demee noonu dafa métti tey ñu ko ñi ko yor dañu nekk ci ay association am seeni gis-gis nu nu àdduna bi di doxee lu méngool ak loo xamante ni ñun loolu mooy suñu gëm-gëm ci wàllum société moo tax nag mouvement yi may gis nii ñuy xeex yooyu dafa baax ñu ànd ak gouvernement bi parce que bu ñu yaakaar ne gouvernement bi dafa fi nekk pour homologuer loolu non ku mel ni président de la république dafa am benn rôle bu ñuy sa dafa benn taxawaay boo xamante ni bokkul ak suñu taxawaay ñun nga xam ne amuñu benn responsabilité. yaa ngi yaa ngi yaa ngi junj question des LGBT. mais absolument man awma ci benn man awma ci benn xaar ma yàlla. gouvernement bi du ko validé. en tout cas gëwuma ko. gouvernement bi lu tax àndul ak sàmm jikko yi pour criminaliser koo aussi. non moom moom laa lay jéem expliquer. Mhm. dama ne xam nga président de la république. président de la république la. bokkul ak un opposant bi nga xam ne amul benn responsabilité. Mhm. biir ak ci biti. Mhm. tey ñooñu ngay gis dañoo am doole président de la république 16 million de personnes lay gérer ñun suñu bopp la ñuy gérer donc tey boo nekkee ci benn réew boo xamante ne légaliser wuñu homosexualité il faut que loolu également mu leer au Sénégal légalise légaliser wuñu homosexualité léegi nit ñi dañ ko bëgg a yóbbu benn niveau mooy criminalisation te loolu dafa am loo xamante ne il faut que ñu bàyyi ci xel. criminalise gis nañ fii bu ñuy criminaliser bu ñuy bu ñuy def euh, euh, autant pour moi euh, pen xaw ma nu ñu koy waxee. peine de mort mhm. dañ ko jël mhm. après ñu mujjee ko bàyyi mhm. mais man li ma gëm mooy bu fekkente ne wàllum jikko la ñun ñii nekk ci société kuréel yi nga xam ni tey ñoom ñoo nekk ci mouvement religieux yi wala traditionnel yi ak ñëpp ñi nekk ci société bi ñun ñoo ci war a ànd xeex ko maanaam du xeex reyante mais xeex sàmm jikko xeex sàmm jikko yi nag mu ngi tàmbali suñu suñu suñuy kër mu ngi tàmbali suñu gox dama doon waxtaan ak benn benn ndaw mu ne ma oh, Macky Sall dafa bëgg légaliser affaire bi ma ne ko yow pour pourtant yaa ngi ànd ak ay ay ay ay nit yoo xam ne dañ leen tëg bët na leen ay homosexuel lañ hmm. ban matukaay nga jël contre ñoom donc ku nekk dafa am responsabilité. commencé ci une responsabilité individuelle une responsabilité individuelle. yaakaar naa li muy wax lu am solo la ndax gis nga question de société société moo koy xeex d' abord yaakaar naa loolu lu am solo la nit ñi xam ko aussi su fekkente ne ay question parce que ay question d' homosexualité question de de d' lgbtisme et cetera man dama koy wax tout le temps ay question de société la nit ñi ñoom ñoo koy dund du ay droit yu ñuy promulguer du ay euh, loi yoo xamante ne dañuy ñëw di ko teg si bopp nit ñi comme comme ay épée de Damoclès jikko la. comportement la euh, manière de faire la ak aussi euh, benn pratique boo xam ne dañ koy accepté wala ñu koy orienté ci suñu biir euh, mode de vie donc comme dafay concerner nit ñi nit ñi si boppam ñoom ñoo ci war a mun a jël seen matukaay yaakaar naa RGPA position bi mu ci am aussi position bu ca bu carrément. damay damay joxe benn anecdote rek dafa am benn suñu benn partenaire boo xam ni waroon nañu liggéey ak moom mais bu ñu demee ba ci biir dañu gis ni c'est des gens qui prônent ces histoires après bon dañoo dañoo sursoir collaboration parce que ñun it dafa am ay valeurs yu ñuy prôné RJPAO dafa am ay valeurs yu ñuy prôné moo tax am na lu moo jaaxal bon bëggoon naa nga wax ngay wax sénégalais yi naka ngeen ko gérer parce que RJPAO particularité mooy dafa am des partis du pouvoir am aussi ñu nekk ci opposition te fu ñu leen mës a fekk dañuy mbëkkante gis nga ni toujours même dialogue national dafa bloqué concertation dafa bloqué yéen nan ngeen def ba mën a ànd nekk ay jeunes déjà ak jeune ak tempérament muy demee bokku leen ay parti yi ngeen jógee ba pare mun a liggéeyandoo ensemble nan ngeen gérer loolu. l'intérêt supérieur de la nation maanaam tey man amu benn problème di waxtaan ak ay ndaw yu nekk PASTEF amu benn problème waxtaan ay ndaw yu nekk PDS noonu la ñëpp ñu nekk suñu kuréel ñàkk problème di waxtaan ak ndaw yooyu noonu xam nga li ko waral. mooy que dañoo xam lu ñu bëgg ñu bokk bëgg-bëgg war ci mën ànd ñun ñëpp pour am ko waaye ci kaw nag bokk benn Sénégal senegal bi nga xam ni bu amul diisoo mënuñoo doxal dara bu amul waxtaan mënuñoo doxal dara bu fekkente ne ñun miy nekk ci parti yi ñun ñooy xalaat ëllëg nekk kilifa réew yi ci teel lañ koy waxtaanee cultiver loolu noonu bu problème mën a am sax ñu woowante suñu biir waxtaanee ko suñu biir ñu xool yan angle lañ koy attaqué gérer ko problème duy ñàkk de. Mhm. problème day am. il faut ñu des fois ngeen laale. des fois ñu laale mhm. mais après dañuy waxtaan ku nekk dalal xelam ñu xam ni dëgg dëgg dëgg ñun lu ñu ñor mooy ndaw yi. ak askanu Sénégal. yaakaar naa loolu leçon de vie bu RGPAO di jàngal acteur politique de manière générale lay doon ñu mooy wax ni euh, temps bi jeex na lan ma sa kàddu yu mujj. Euh, di leen di remercier bu baax a baax a baax a baax ndax euh, ba ñu euh, sumbee lii plateau yu mel nii dafa doon jafe bu dafa doon jafe ñu koy am parce que naa ne ñun ñi suñu bopp loo xamante ne tey peut nañoo woo mag yi pour ñu mun ñu may ay waxtaan mais li ngeen def nii tey peut-être keneen mën na ñëw déglu ni lii xew na il faut mu ñëw jàpp si donc lenn rek laa leen di wax mooy di leen di remercier vraiment di leen di encourager ndax euh, plateau bi dafa am solo euh, di ñaax jeunes yi élection yi ñuy jëm ñoom it ñu am ay ambition waaye teg ko ci loo xamante ne lu lu am solo. loolu dinaa la ko laaj ci am nga baal ma ko. mbaa di ngeen nekk ay candidats ci mairie mais bien sûr. man Ziguinchor bëgg naa ko jël kon jeex na. kon yaakaar naa taxawaay taxawaay bu bees lay laaj euh, ci euh, jeunes yi rawatina ci biir euh, instance élective yi bon yeggaguñ ci instance élective dafay commencer d'abord ci biir parti politique yi waaye tamit comme li ñu koy waxee yaakaar naa foofu sax ngay tëjee pap balaa ngay ne naam nga ne fa tey jii politique ku ko wax dafa dafay laaj moyen tey si ay jeunes yoo xamante ne seen poste diisul. liggéey sax ay la yéwén amuñ nga ko gis nañ manifestation yi fi jaar ci mois de mars bi naka la seen participation politique war a tëjaalee loolu. alors ñoom aussi loolu li mu li li ñu mën a def rek mooy xam seen responsabilité gis nga am responsabilité xam responsabilité moo ko ëpp doole bu ñu xamee seen responsabilité ñu am moyen ñu ñàkk moyen volonté ngi fi te yàlla ku mu gis nga am volonté mu fekk la fa yàlla li mu dul accepté mooy amoo volonté di jaar ay raccourci te parti politique yi dafa nekkoon ay raccourci ñoo xam ni bëgg nañ faa nekk rek pour ñu fal leen. mais bu amee ñoo xam ne prise de conscience am na ci ñoom ñu am une responsabilité boo xam ne yëg nañ ko xam nañ ko ba pare nag daal di am seen volonté yàlla forcément daf leen fay fekk si bi ci des mooy bu ñu nangu manipulation ak récupération parce que am na ñoo xam ne lu ñu gis mu am solo ñu récupérer ko wala ñu manipuler leen donc il faut aussi constance boobu parce que nit ñi bëri nañu di gis ay leader di am si ñoom yaakaar mais ñàkk constance tax na ba kenn amatul confiance ci politique kon je crois que bu conscience boobu amee ci ay jeunes ñu fédéré ay parti yu bare bari ñu daje di def seen formation di capacité ay ndaw def loolu yaakaar mun na foo judd kon nag mag ñi nañ leen gunge mag ñi nañ leen bañ a siis nañ leen ànd ak ñoom parce que amuñu les moyens te gis nga bu ñu leen jàppalewul ci ay moyens ñeneen ñoo leen di jàppale ci ay moyens te bu ñu leen jàppalee mën nañ leen def loolu lu ñu bëggul kon mag ñi il faut ñu gunge leen ñoom itam ñu am seen ligne éditoriale dara du leen ci jëlee Mourchid nag defe naa ni ci loolu la taxaw moo tax amul nekk nga jeune amul nekk nga pas essentiel bi mooy mu xam ne borom responsabilité donc xam bi ñu xam ne li ngeen di def nii am na solo moo tax plateau bi doonte ni euh, plateau bu ñëpp di bëgg a ñëw la waaye terewul itam dañ leen fi jox seen wàll parce que ñun de suñu 30 pour cent dugal nañ ko lu <laughs> gis ngeen suñu 30 pour cent kon suñu 30 pour cent dugal nañ ko kon di leen ñaan yàlla jàppale leen usam di sant Thiam aussi di sant téléspectateurs yi ci euh, suivre bi ñu doon suivre seen temps bi nga xam ne yéen ko safoo taamu ko dinañ jox rendez-vous demain incha allah merci. mu ngoog yaakaar naa 30 pour cent kese la ñuy euh, laaj lim bi euh, bariwul lool bu buñ dee xool li nga xam ni moom moo fi nekk ci ay euh, bokk moomeel nekk ko itam ci yenn banqaas yoo xam ni dañuy fare ci réew mi te ñi nga xam ni tamit dañ fay toog dañ leen di tab ci tabbin boo xam ni askan wi daf si joxe xalaatam yaakaar na jeunes yi itam dañoo bokk ci askan wi seen kàddu dafa bokk ci askan wi te itam nag lépp loo xam ni dañ koy nas wala duñ ko nocc di ko not ci seen ah, teewaay ci instance yooyu dafa sax nekk fu mu toll nii exigence ndax bu ñu xoolee bu baax ah, Sénégal ni mu bindoo avec ah, un pays de pour cent de jeune yaakaar naa ñooñu seen place biir instance élective yi lu am solo la loolu moo nekkoon plaidoyer bi nga xam ni paw en tout cas moom la doon fas yéene partagé ak Actu Plus ak ñi nga xam ni ñoom ñoo nekkoon ci toile bi toog tamit seen i kër di ñu seetaan sant ak ngërëm ñeel na leen saa su di leen jox dig daje ëllëg ci beneen plateau lay doon ak beneen invité di si ànd ak sama tandem préféré Pape goro Diagne jàngeen jëf